ñoo fi teewal sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des Mourides ñu leen di dalal jàmm di dalal jàmm sëriñ Fàllu Mbàkke ibnu sëñ Abdou Khadr di dalal jàmm le porte-parole de Touba sunu xarit sunu mag sunu kilifa sëñ Bass Abdou Khadr ak délégation bi ñu àndal yépp jóge ca sang bu tedd ba di dalal jàmm le représentant du khalife général des Mourides à Dakar Serigne Mbacké wu Faye di dalal jàmm nag sunu mag sunu xarit Abdoulaye Diouf Sarr le maire de Yoff ministre de la santé nekk chef de délégation de la délégation bi nga xam ne son excellence monsieur le président de monsieur Macky Sall moom la yónnee fii ci bés bu màgg bi moom ak délégation bi ko accompagner ministre député au conseiller ak tous les chefs de service administratif service décentralisé ñoom ñëpp ñu ngi leen di dalal jàmm ci bés bi di fi dalal jàmm toutes les autorités di nuyu suñu mag suñu xarit le président Pape Diop ak tous les représentants des partis politiques représentés ici di nuyu képp koo xam ne ñoo nga wuyu si rawatina nag ñi nga xam ne ñoo waral bés bi tey muy kuréelu julli géej gi di si beral loxo nag monsieur le président Matar Diouf ak sunu yaay Euh, Sodo Xumma ci taxawaay bi ci innovation bi ci pas-pas bi parce que lii ku gis bés bi xam nañ ni borom bés bi nag moo mënal boppam bés bi waaye nag am na ñoo xam ne taxaw nañ ci bés bi ba mu def vingt-quatre ans donc lu yàgg dëgg la am pas-pas-pas ba tey ba mu gën a yaatoo nii rond noor Nord Foire ba ñëw jàkkaarloo géej gi kon yàgg na donc ay tout tànk lañu woon bañ ci taam bañ ciy teel a ñëw ba tey jii am ci ay ndomba tànk fekkee ko sant yàlla bu baax sant bu baax yonente bu tedd bi Seydina Muhammad sant borom Touba ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen dalal jàmm di félicité kuréelu julli géej gi di ñaan yàlla bu déwénee yàlla bu ko kenn wutee yàlla yàlla def jàmm ci réew mi élection yi ñu jëm yàlla na yàlla def jàmm na ku nekk tànn sa candidat na nit ñi respecté choix nit ñi ku nekk na nga am